man maa tudd Mamadou Ndiaye maay papay Ababacar Ndiaye tuddee ko sama papa ah, xaw ma Aba dafa nax yaayam xaw dafa profité si yaayam yaayam moo njëkk woo ay mbokkam tey invité leen mu tombe ak anniversaire juddu Aba le 15 janvier moom le 15 janvier 1994 la juddu mu mu ni moom tamit def si profité waale pour inviter ay xaritam ay mbokkam lancé waale mouvement politique moom mooy lancé mouvement politique am tudde ko fajar euh, mu ni day dugg si politique defoon na fi meeting woo ministre Dame Diop mi nga xam ni APR la bokk nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar fii si Diourbel pour mairie bi ni moom lay jàppale moom Abba parce que li tax moom Abba mooy ni il est libre magum jëmm la majeur la am na droit far fu ko neex ci politique ndaxte man mii di papam sam papa nekkoon parti socialiste mësuñu ni par force ngeen di militer parti socialiste man mi militant wu PDS laa woon donc moom su faree APR sañ na ko man fu ma far soxloolu ma koy wax. oui alors man maa ngi tudd Mame Atou Ndiaye ah donc euh, nekk euh, papa ci ci Abba parce que papam la ndax frère jeune frère papam la mais dafay nekk sa papa parce que mooy suñu tur mooy sama turandoo papa. voilà donc je viens de Dakar comme ça pour venir le soutenir venir l'assister hein, avec ma avec toute ma toute ma petite famille parce que c'est un c'est un jeune que je respecte beaucoup. donc pour son engagement et sa franchise et son sens de la famille voilà donc muy muy muy muy doom ci kër gi boo xamante ne ñun dañ ko naw bu mu bëri ku tey jii nii bu ñëwee am euh, euh, commencé dugg ci mouvement politique am du nekk lu ñu bett ah parce que ci ay tànk turandoom la topp donc comme disait mon grand frère sama papa politicien donc euh, parti socialiste ba bokk ci sage parti socialiste yi ah donc tey jii bu ñëwee moom aussi selon ses convictions ah an am fu mu am fu mu nekk am fu mu ànd ba dañ ko siy jàppale ñun ñëpp te xam ne de toute façon du doon ci lu ci bon du doon ci lu ci ci luy ci luy ci ci luy yàq kenn. donc man maa ngi tudd El Hadj Omar Bayo euh, suñu xarit Ababacar Ndiaye moo ñu invité woon këram donc invitation bi sa concernait lancement mouvement am euh, bu mu bu mu donc euh, aussi euh, màggal euh, njaareem 15 janvier ak aussi mu tombeek anniversaire am donc c'est tout à fait normal ay xaritam ay am di jàmmam ak famem ñëpp ñëw fi donc loolu moo ñu fi nii donc pour wax si Ababacar bon ça va compliqué parce que on est des amis depuis longtemps donc xamante bu baax donc li ko ñëpp mën a seedeel mooy mooy nit ku bëgg njaareem la nit ka nga xamante ne njaareem rek ko ñor le ka nga xamante ne il a été engagé dès le début donc moom dès le début daa da doon jeune ba nga xamante ne dafa engagé wu si affaire développement de la cité donc loolu suñu hormis l'amitié bu ñu am hormis euh, fraternité bi ñu am ak yeneen ak yeneen li ëpp solo si liñ koy nawee mooy mooy engagement boobu moo si Diourbel moo looloo tax c'est tout à fait logique ñu mun a concevoir tey mu lancer mouvement am c'est tout à fait logique mu ñu concevoir tey mu mun a bokk dans si langue politique bi ndax am na baat ci dëkk bi war na am lu mu mën a développer si dëkk bi donc en gros euh, euh, man nit ku ma respecté la nit ku ma naw la et en man tamit jàpp naa ne euh, nuñ koy xateeti nit ku war a mën a am baat ci dëkk bi la donc. man la Mamadou Lamda Fall di frère ou grand frère ou Aba en fait Aba il a deux familles famille am bi nekk fii Diourbel ak bi nekk Bambey. Donc, euh, man maay je parle au nom de toute la famille, toute sa grande famille qui se trouve à Bambey. Aba doon na koo xam ne c'est un jeune très engagé sur le plan euh, plan sportif ak sur le plan de développement et tout ça. Donc tey dañ fay ñëw nii si journée bi nga xam ne moom la confrère pour lancer son mouvement politique. mais en même temps mu coïncider ak euh, ak euh, anniversaire am donc ñu ñëw fi teewal ko teewal waa Bambey yëpp nag. donc euh, ñu ngi koy souhaiter bonne chance si ci ci ci ci live am bonne chance si mouvement politique am bonne chance tamit si dundam li mu bëgg lépp yàlla dina ko defal incha allah rabbi. donc maa ngi tudd Ababacar Ndiaye donc ñu gën nga xam ci Aba donc may yëngatu ci domaine yu bëri à travers la ville. mais nag ci domaine sportif lañ ma gën a xamee voilà donc daje tey bi lu ko sumb dafa doon sur euh, trois choses la première mooy que ne d'abord c'est le jour de mon anniversaire le 15 janvier la deuxième mooy que ne le jeudi passé dañ ma doon sargal à travers euh, la cérémonie de ballon d'or di leen di leen remercier waat de passage donc ñu distingue ma woon euh, comme sportif de l'année et la troisième et dernière la plus importante mooy euh, mu doon euh, cérémonie lancement suñu mouvement politique. tout d'abord ñëw d'abord ci turu mouvement bi donc mouvement bi mu ngi ñëw ci fraternité par des actions par des actions avec des jeunes et adultes aguerris pour le rayonnement du Sénégal fajar donc loolu moo sabab mouvement bi donc pour ñëw ci sa question donc mouvement bi dafa tombeek bi ñuy préparer élection. locale 2022 donc mu tombé context boobu noonu donc on a jugé opportun et nécessaire pour soutenir la candidature du ministre Dame Diop à, euh, à, à la municipalité et la candidature de monsieur Moustapha Gueye au conseil départemental mais toujours en est-il que ne nous sommes derrière le ministre Dame Diop incha allah pour le soutenir et pour travailler avec lui. Ah, parce que ñun ko ñu xam-xam ñu ci euh, ci ci ci ci dëggu xam ñu ci liggéey. donc tout dépendra de ce qu'il propose donc mënuñu nekk ne moom la ñu continuer di àndal wala dañ koy bàyyi parce que tamit nu sommes en politique il faut le dire donc euh, tout dépendra de li nga xam ne gëdd bi ñu jox tout dépendra de li nga xam ne moom la ñuy proposer en tant programme muy programme bu ama am solo pour la commune de Diourbel donc on espère bien que ne ànd bi dina yàgg te sax parce que monsieur le ministre doon na nit koo xam ne euh, à travers le Sénégal ñëpp ñu ngi distinguer liggéey bi muy def et programme am nañ yaakaar ci moom